mbokk yi ñu ngi rafetlu kembali ke ak Malikia TV tey nag ñu ngi dellu émission et Ramadan li ñu fas yéene waxtaanee tey mooy yan boisson la ñu éviter lan lañu wara war a moytoo kon loolu duñu def nak luddul dul ci docteur Marie Louise mom mu indil ñu ci ay léral boisson bo xamni ya y a trop de sucre dafa concentré en sucre def nañ ci sucre trop gënul boisson bo xamni dafa glacé koku aussi gënul boisson bi wala ndox bu glacé mën na sedd mais wagul glacé wowal ici par exemple buñu ñuy doog ndox bi nek ndox bu tang bay bax dafay nekk ndox boo xam ne na nugg na mën nga ko consommer sans problème mais wagu nek ndox buy bax bay bay lakki wagu nek une boisson chaude très chaude wagu nek une boisson glacée mën na nekk nag une boisson froide nii sedd sedd bu yem nga nan ko ndox bi ngay nan wala jus bi mais wagul trop trop glacé trop froid trop chaud ni trop sucré aussi dañuy préférer commencer lu lu parce que organisme tourne peut-être je ne sais pas combien de temps depuis bon fajar et ainsi de suite mon activité pratiquement euh, tube digestif je veux dire surtout euh, entrée bien et tout la partie haute et tout parce que l'écho, donc après digestion li nga lekk si fajar bi après activité donc yo booy ñëwaat di réalimenté donc donc donc doo donc indi loo xam ne day indi contraction donc c'est ça vous ñëwee par exemple indi lu glacé du sedd yow boo koy naan sax di nga sentir ni que ça ne va pas normalement boo gëjee naan nga naan dañuy gis ni que dangay am problème pour ndox bi ni mu war a wàcce sax di ko wàcce te fu muy jaar yi da koy sentir noonu n'est-ce pas c'est un peu la même chose avec bu tàngee torop donc en fait day xaw a mel ni loo xam day agresser sa organisme day agresser sa tube digestif donc on y va indi loo xam ne dina dina ko voilà réveiller ndànk-ndànk nga lekk dem sa mais on sait que en dehors du contexte du Ramadan ba les mêmes recommandations là dañuy persister lu tàng togop togop togop dañuy tere nit di consommer comme aussi lu sedd guy boy xool léegi aujourd'hui pas mal de gens maintenant naanatuñu ndox bu glacé peut-être dinañ nangu sax mu sedd tuuti mais pas glacé di nga dem dans dans d'autres pays duñ la sax jox ndox bu fugaa mais dañ lay jox de l'eau tiède pour nga l'eau tiède yëpp y a des raisons parce que gis nañ ko day am répercussions yi muy am surtout tube digestif day indi benn contraste boo xam ne moom la ñuy éviter. jaajëfal docteur marie ci leeral li mu indi kon euh, ñoo ko déggandoo euh, bu ñu wooratee ba ngoon jot mën nañ naan bisaab mën nañ naan dinjeer waaye nag nañu moytu suukar su bari si lii kon lañ leen indiloon tey ci seen euh, émission Diète et Ramadan di leen wax ba beneen incha allah.